Souleymane communalisé na màggug Seydina Mouhamed Tiwaawoon Touba Ndiassane fépp mais mu indi ci xeet bi indi ko dans le quartier pour que képp koo xam ne mënoo woon a dem nga màggal dëgg la am na contexte mais ci biir contexte bi am na ñu dem li mu def tey kon lu lu am solo la si lislaam parce que ñi sori ñëpp ñi mënul dem ñu ngi dégg baaxaayu Rasulullah sant la nag gërëm la parce que un homme politique dafa war a am dimension sociale à ay fonction mi ngi ko jox dimension sociale bi mooy seet bëgg-bëgg doomu aadama gis-gisu doomu aadama fekk ka si di ko si bëggal kon tey bis bi bis bu am solo la fii ñu toll nii ci Souleymane bis bu am solo la ci ñuy ànd ak Souleymane bis bu am solo la pour nous remémoriser la naissance du prophète